donc tey lu ñu dajale fii mooy collectif euh, saytu Ngexo ak collectif aussi des travailleurs de Agifor Agifor mu nekk association des usagers du forage maanaam ñoom ñooy yëngu ci lépp lu jëm si wàllu ndox fii si campement Ngexo donc lu ñu fi dajale tey lu ndaw la bu njëkk bi moy ñun dañoo dégg né euh, ndox bi dañ koy jël ci Agifor yóbbu ko si Sen'Eau te ñun dañ fi defoon ben manifestation pacifique manam marche ndoxum ñak ñu ne mënuñu

bu fay mooy tax Sen'Eau mun fay ñu fay liggéeyee mais aussi mooy tax Sen'Eau mun fonctionner parce que entreprise privée la donc loolu la ñuy wax mooy suñu revendication moo tax ñu woote conférence de presse bi. ñun dañu am ñaari forage fi bu ci nekk am capacité mais forage bi ëppoon doole bi mu ñuy jox ndox ñun mooy bi nga xamante ni doon pomper entre 55 et soixante cinq mètres cube heure boobu moo ëppoon doole boobu lañu ñu bamu ba mu yàgg mu mu rës manam dematul parce que il y avait des problèmes ci colonie biñ ko reprendre te limu ñu jox joxu ñu ko légui mané ku yor sa njaboot nga leen di dundalé nga war leen a dundalee juróomi kilo ceeb ñukoy tundé ay at ba am doole fort physique et tout ça nga xey ben bis jox leen ñaari kilo xalé dañuy dañuy xiiboon dootuñu mun lu luñu mën loolu moo dal fi mais tay waxtu wi waru won fekk sax ñu ñak ndox ba diko joy joy mitini seno nii seen mënoon na ñëw fekk ñu effectivement bu ñepp mënut a am ndoxit aussi tendance bi xam nga dañuy wax 20 de cent ñoo amul ndox ñoo am ndox 80 pour cent kii tey nous mënoon na fekk Ngexo am 80 pour cent am ndox ak 20 et c'est possible c'est loolu que ko waral pompe et pompe ça coûte même pas 5 millions et c'était possible et ça je personne ne peut l'enlever. il faut ko parce que moi mooy gérer affaire c'est elle qui doit acheter ça bon une situation bi effectivement euh, ñun demande ni dafa mission le 11 mai bi mu fi début processus bi ba ci fin bi associé wuñ ci ne boole wuñ ñi ci te ñun ñu Nous nous ñaar fukat at nous fait. ak juróom ñii fukki nous ak at nous wuñ ci mu trop parce que nous ki mënu di liggéey ci entreprise pendant 20 ans 15 ans ñuy def benn mbir ñu nous ko ci bedd c'est pas possible donc il y' a problème le problème c'est ñun nous ne lu je wax démarche yi que dama fàtte sax ne la ñun li ñu nekk ni préfets ginnaaw buñ ci les jee ay sous-préfet préfet ñooñu ñëpp bindu leen ñenn ñu recevoir ñu ñenn ñu recevoir ñu ñun confédération des syndicats autonomes du Sénégal Nous fa la ñu on a été reçu même par le secrétaire général qui est le secrétaire général des syndicats des eaux du Sénégal nous avons discuté amplement sur ce dossier. Donc, nous aussi, ils nous accompagnent sur cette affaire-là. Parce que pourquoi On a constaté du début à la fin, ni les autorités politiques, ni les autorités administratives, qu'on a fait sur nous C'est ça le problème. Maintenant, nous ñun adressé une correspondance à moo xam la SEN'EAU la la SONES de l'hydraulique de Thiès le préfet le sous-préfet le maire

ñu jàpp ci fas yéene koo parce que effectivement c'est vrai moom wax na ko seule la légitimité populaire est valable li ci des ay wax la rek et vous le savez mieux que man mii loolu moom c'est clair maintenant euh, problème bi mooy Agifor avant muy ñëw di installé wu ay doomu ngex wax yo xamanteni ñu ngi suñu biir ñun ñoo dem ñafé ji en Europe indi fi financement de plus de 300 millions ñu def ko ci réseau Ngexoox bi Ngexoox mom ko ni la commune ni l'État du Sénégal ne l'a pas fait c'est des partenaires yu jóge ci koñ ñoo ñu indi ko fii dëkk bi 4 km foo ci dem ci koñ nit ñi di sangoo seen sas loolu ñu maintenir nga bañu ba Agifor ñëw fekk fi ay nit ñu am contrat c'est lola. ñoom bi ñu ñëwee ñu defee ni di lañ ko war a casser bi ñu au niveau de l'inspection du travail un ci boppam parce que j'ai j'ai oublié d'amener le document mais je naa ko indi après ñu publier ko faut leen ko bëgg ñu publier ko ñun les travailleurs ñu renoncer yenn privilèges yi pour se mettre à l'aise à fort, démarrer. démarrage pour nous mettre à l'aise à fort, démarrage donc nous avons nga xamante euh, euh, renoncé à Nous Nous ñu renouvelé notre contrat Le contrat n'est que 7 contrats à durée indéterminée am quatre ñoo sont ni Nous avons comme de service nous sommes au nombre 11 sur la question Nous avons un contrat à durée indéterminée en bonne et due forme ñi

tout ce que tu veux boire tout ak ña fa nekkoon ñëpp ngay bolé moy lu tuddé da ngay jël actif bi ak passif bi passif bi moy doom aadama yi ak yeneen détails yi comprends nga lolu du luñu discuter té Sénégal comme niko ko Souleymane waxee dafa ratifier comme dans les autres comme les autres pays du monde euh, ki bi convention bobu donc mënu ko ratifier ba paré nak di def leneen c'est pas possible